bi nga xamante ni le président daal dina koy daal dina koy daal dina koy lancé euh, ban xalaat nga ci am ak ban gis-gis nga ci am. premier xalaat moom mooy Sénégal est un pays de dialogue Senghor moo ko waxoon te euh, loo gis muy yëngal kër wala muy yëngal dëkk ci penc lay mujj. moom moo tax euh, dialogue mooy lu xam ne lu am solo la président de la république Macky Sall ci njëlbeenam ayam dafa woote woon jaloo nit ñi demoon nañu am na lu mu dem am na lu ci génn mais ba ñu daxaatee ba tey ji tamit ñu gis ne que am na ay xaar ma yàlla ci diggante politique yi ak yooyu président tamit li nga xam ne mooy màndarga Sénégal te ñëpp xam ko muy woote waxtaan mu woote waat waxtaan defe naa daal loolu lu am solo la parce que day tàppe xol yi day tax nit ñi ñëw waxtaane li ñu war a waxtaane parce que li ñu mënta waxtaane ci penc mi ci penc mi ci mbedd mi lay mucc mm-hmm. kon waxtaane ko ci penc mi peccoo ko moo gën waxtaane ko ci mbedd mi ñu àtte leen